jërë ngeen jëf yéen ñi safoo Feeling Dakar TV dal leen ak jàmm ci seen actualité du jour ñu dooree ko Guy mi nga xamante ne ni ki dimanche daal dina yootu nekk jullit ba sax ñu daal di koy tuddee Seydina sallallahu alayhi wa sallam moom Guy Marius Sagna nag ci ginnaaw ba mu tuub daal dinay takk ab ñaareel ci noonu nag la ñuy xam leen ni Guy Marius Sagna ci fàttali rek euh, moom nag Guy Marius yàgg nañ ko ràññee ci li nga xamante ni moo di langue politique gi ginnaaw bi nga xamante ni sax mbir moomu muy di xeex pour dëkkam ci lañ ko gënoon a ràññee ba tax na mu daal di dugg euh, kaso à plusieurs reprises moom moo Marius Sagna ni ki dimanche bi la ñu xam ne daal dinay tuub nekk jullit ba daal di tudd euh, li nga xamante ne moo di euh, Seydina Mouhamed ci fàttali ba tey Guy Marius Sagna ab député la pour sa disponibilité di xeex ngir patriote nekk tamit une personne engagée ci activisme bi moom Guy Marius Sagna nekk célèbre ci mouvement Y'en a wala mouvement FRAPP moom mi nga xamante ne nag ab député la bañ intercoalition yeewu wàllu ci lañ ko rek daal di tabbe mu nekk Guy Marius Sagna ñi gënoon ko ràññee lool ci wàllum xeex wàllum injustice ci réew mi niki dimanche jot nañ ay xibaar ne moom Guy Marius Sagna daal dinay tuub ba takk ñaareel toute l'équipe de Feeling Dakar di ko souhaiter heureux ménage ci takkub ñaareelu Guy Marius Sagna yi tamit dañ leen fàttali que ni euh, ki nga xamante ni moo di le plan B de l'ex-Pastef di euh, Bassirou Diomaye fay moom itamit kon na ab ñaareel avant son nag da koo rek daal di def sous la discrétion da koo rek daal di def ci pat pataaral avant nag ñu koy daal di teg loxo un mois avant loolu la daal di ñaareel moom Bassirou Diomaye Faye donc nag moom nag kii di Guy Marius Sagna kon mun nañ jàpp ni moom rek la daal di rejoindre ba tax na sax moom kii di Bassirou Diomaye fay xam naa ne nag day xaarandi rek ñu dal di koy rek may ab liberté mu daal di mën a rek mariage am di dem fa nga xamante ni tuuti ca lune de miel ba ñu jàll ci eh, ki nga xamante moo di Mia Guissé moom Mia Guissé nag ginnaaw fan yi daal dinay saf sàpp ci réseaux sociaux yi ndax nag day daal di ñaawal jëkkër ji waaw wala déet kenn xamul lu ni mel waaye daal dinay saf sàpp dal ci réseaux sociaux yi daal di def ab jongoma lool di def ab vidéo di fecc di yëngal ndiggam li ci benn son carabalik bi nga xamante ni ànd na si ak jaar moom daal eh, kii di Mia Guissé eh, daal di teg l'enfant chéri de Tambacounda boobu di wéy di wane li nga xamante ne moo di langum euh, showbiz. Awa Balde moom nag dañu ko rek daal di cambriolé maanaam dafa génnoon ba mu ñëwee nag dafa fekk ñu daal di rek tasaare bagage yam yëpp daal di jël ay oram ak lu tolloo ak somme d'argent ci euh, boobu appartement li ko waral nag moom Awa Balde ba mu génnee def ab vidéo mi ngi xam le ni dañoo ñëw fekk ñu daal di dajji appartement am daal di koy rek saboté jaxase foofu semer la pagaille moom lañ fa rek daal di def euh, Awa Balde autant moom nag ñëpp ràññee nañ ko ci réseaux sociaux mu nekk makeup influenceuse moom nag ba mu génnee la mu tontu nag nekk na message bu salé et ciblé maanaam dafa joxoñ baaraamu tuuma ay ñi la kenn xamagu ko waaye nag la mu xamle mooy ne ni kenn mënu koo intimider nee na xaalis ak or bi nga xamante ni jël nañ ko moom moo ko moom te moom moo ko liggéey dara jaralu ko muy nekk elle n'a rien à foutre de cette fortune bi nga xamante ni moom moo ko liggéey moo ko ñafe moo ko jënd ci xaalisam donc bu fekkee ni ay nit dañoo ñëw mal intentionné ñëw jëm li nga xamante ni moo ci appartement loolu nag dina ko topp ba euh, fa baxana doonee benn ndaxte loo mi nekkoon seen petit gàlle moom rek la ñu daal di seetlu foofu ca TFM ci émission boobu di weekend TFM émission boobu di weekend start moom la njëkk lañ daal di seetlu mu nekkoo présentateur bu moom ak Samira ñooy daal di def boobu lépp émission ndaxte loo nag ginnaaw bañ ko recruter fii ci diwaanu TFM gis nañu nag boobu ba tey ma ngay lëmbee réseaux sociaux yi tey daal dinay solo robe mu lant daal di génne bépp forme boo xamante ni moom ndaxte loo daal dina koy rek ci fàttali rek Martelo bokkoon na ci All Star de Sen Petit Gallé moom moomu le nag daal dina nekkoon ab jabar ci eh, kenn ci célébrité yi eh, moom Martelo nag ginnaaw ab divorce ba tey jii nag la ñu daal di koy remarqué foofu ca niveau de la TFM mu daal di fay nekk ab actrice. Bouba Ndour nag la mu tontu Abba No Stress ci émission bi nga xamante ne moo di jàkkaarloo mooy que ni jàkkaarloo ak li nga xamante ni moo di Abba Stress du ñu doon benn ndax société bi dañuy soxla également ñuy xam li ci dëkk bi malgré sax bu fekkee ay moom bëgg nañ ko lool pour mën a décompressé wu yi tamit dañuy soxla xam li nga xamante ne moo xew ci réew mi ak tamit avis yi nga xamante ne moom la sénégalais yi uh, di amal loolu nag li waral Bouba Ndour daal di tontu tontu bu saf boobu kii di Abba No Stress na ci provocation bu ko Abba doon amal xamal a di am tous les vendredis te ngeen éliminer seen uh, émission boobu di jàkkaarloo loolu nag boo tax kii di Bouba Ndour tontu nag dégg nañ ko ci ab boss comédien moom mi nga xamante ni moo nekk borom kër bu umu umu boos nag daal dinay génn xam ne ni samedi incha allah dina fas yéene rek daal di quitter réseaux sociaux yi li ko waral nag laataa muy quitter wala muy désinstallé bi boo xamante ne am na ko dina ko wax euh, ba pare doogu rek daal di quitter muy woy di jéggaluwaat ay fansam jéggaluwaat ay followers am di xam le ne nag li nga xamante ne moo xew ci réseaux sociaux yi jamono ci bokk na ci li ko poussé à mu daal di rek génn boppam ci li nga xamante ne moo di langue euh, réseaux sociaux yi euh, nga xamante ni moo di umu ba ba tey coow jugul benn yoon si ñoom ñaar ci couple boobu ndax lu nekk rek lañ leen di waxal moom nag peut-être dina génn xam le li waral mu fas yéene rek jël décision bu nu mel Gris 2 moom moom nga xamante ni teg nañ ko loxo nag daal dinañuy ñëwaat sur le fond de son dossier xam le ni moom Gris 2 li waral ñu daal di koy teg loxo rek bokk na ci ab vidéo boo xamante ni dafa def ab injure di rek menacer de mort contre la dame bi nga xamante ni moo moo jiiñoon Gris Bordeaux di mag ci Gris loolu nag moo waral euh, kii di euh, Gris 2 di daal di soutenir euh, ki nga xamante ne rek moo di magam jooju di Gris Bordeaux waaye nag nam ko defee moo nekk anam boo xamante ne rafetul ndax dafa rek ternir l'image bu ndaw soos ndax xam ne ndaw si dafa daal di sosal magam moo waral nag mu daal di def fab vidéo boo xamante ne rek daf ci amal ay menaces de injures et menaces de mort contre ndaw si nga xamante ne moo daal di rek jiiñoon Gris Bordeaux li nga xamante ne moo di wàllum sàccum parfum ci fàttali rek troisième tigre de Fass moom la ñu accusé parfum luxe en décembre 2023 waaye ko jiiñoon nag ab ndaw la boo xamante ni ma nga dëkk foofu ca diwaanu France ba tax na sax mu defoon ab plainte contre la DSC division de sécurité moo waral nag di gride jamono ji ma ngi cay loxo yoon coow la doxoon ca sumbu diggante sumbulu ak sénégalais wala ak ñeeñoo yi ba tey sumbulu nag ma ngay woy di gën a dëggal boppam ci boobu lépp théâtre ndax gis nañu épisode yi nga xamante mooy suivre sumbulu moom ma ngay wéy di gën continuer sa position ak li nga xamante ne moo di personnage bi nga xamante ne moom lay incarné ci série boobu di bété bété wut benn yoon wala sax mu def ab vidéo li ko waral nag xëy na mën nañu jàppandi rek ndax sumbulu boobu bés dina ñëw affaire bi tourné contre moom li waral nag gënul jéggalu ce sont des raisons yu waral mu daal di def ab tekk tekkaaram waaye nag bu ñu suivre li nga xamante ne yeneen euh, épisode yi sumbulu ma ngay woy di gën a euh, montrer sa position par rapport ak ñeeñooy maanaam buggu leen du leen gën a bëgg mu nekk benn personnage boo xamante touché askan wu bëree bëree bëree Père Lamine Ndiaye moom itam daal nay àddu ci lu nu mel nee na euh, dañoo osé parce ñun ñemewuñu woon ko woon laal loolu nag euh, li nee na tamit li sumbulu wax ay la rek maanaam dañ ko ko jox mu daal di koy rek def moom nee na li nga xamante ne moom la def ci wàllum théâtre muy nekkoon fii benn góor jigéen loolu nag ba tey ji sax regretté wu ko yoon ndax moom Père Lamine Ndiaye ku ko xam-xam ni yàgg na vraiment ci wàllu théâtre lam xam le nag mooy que ni sumbulu musa wax loolu tant nekkul di jouer euh, jaar kon mi ngi noonu mu nekk ay kàddu yoo xamante ni Père Lamine Ndiaye moo ko rek daal di yëkkati daal di nañu koy rek jundu ci épisode bi sax ñu weesu ndax malgré sumbulu moom ma ngay wëy di rek rester sur sa position euh, comme quoi que du mës a bëgg ñeeño ba sax doomam bi ñuy woowee maxu ba mu bëggee takk doomu ki nga xamante ni mooy alkaati war waraloon wax ju rëy jooju daf koo xamal ne tuuti des ma dee bi ma la ëmbee c'était difficile sama accouchement tamit moo na ko ni boo xam xamoo li ma xam di nga daal di maytu ndax moo tax xel daal di ñaaw que ni kii di alkaali mi nga xamante ne moom lay bañ wala boog ma xujja bi nga xamante ne moom lay bañ di deretu ñeeñoo mi ngi daw ci yaramu sumbulu res ñu daal di rek gën a focus ci li nga xamante ne moo di théâtre bi xëy na la sumbulu wax euh, dina am sens un jour mbokk yi jërë ngeen jëf loolu la leen indiloon seen actualité di leen jox dig daje ëllëg ak yeneen actualité jërë ngeen jëf. ak agent bi muy tax xale Tu es ma rose au milieu de l'oasis qui demande son soleil. Et je suis ton ah, kër baay. dégguma ba dara du woon dara man ak Lamine Ndiaye. xale bu tuuti jógee fee. xamul li ma daj. yow yaay jiite jàmm ji. jàmm am jiite woo jàmm ji du ma puus du ma paas du ma fay tas fii laay toog di leen lëjël mel ni téere jë seen kanam mag nag bu amee fulla moo ko may boppam da génnoon wuti ay cumukaay ma génne wuti ay cumukaay bëgg naa lii leen de nit de defal boppam de yow nee naa la mag yow fekk suul luñ la duma la bàyyi l'erreur vient de moi léegi li mu ñaan mooy